waaw cité bi nag dañ fi dëkk mu nekk cité boo xam ne dafa nekk lotissement boo xam ne c'est reconnu par l'état titre foncier la ñu am suñu autorisation suñuy euh, Sénélec ndox mi ak yëpp ñu ñëw dëkk si musuñu am nag problème ndox depuis 2007 ba léegi am na ñu fi dëkk ñu fi jiitu depuis 2007 suñu am benn problème mais yàlla dafa def am si suñu ginnaaw ñoo xamante ni beneen lotissement la boo xamante ni il faut oser le dire lotissement bi sax du lotissement boo xam ne dañ ko doon tenni la ñëw dëkk nu mu leen neexee yeneen ndox nag di jógee yeneen cité ay Ndiaye Lo ay nouvelle Horizon di ñëw gis ngeen ko yéen gisal ngeen ko seen bopp bi mu amee nag ndox mi di dagg di ñëw ci suñu cité daaw bi mu amee ñëw nañ ak autorité yi fi woon ñu xool ñu baare ko après ñu indil ñu des camions hydrocureurs comme li sëñ Yéli wax rek du ma ci dellu si waat ñu taxaw si mais maintenant problème bi dafa gën a métti parce que ndox mi dafa dem ba suñ cité bi dafa yaq xejna amna parti yu ngeen demul mais suñ tali bi dafa dag cité bi mom la wa cité enseignant di transité Air France Air Afrique File la ñuy jaar mais dem na ba oto mënatu fee jaar fimné ay charrette sax gisal ngeen ko seen bop ñoy dugg affaire bi nak metti na trop parce que tamit do jël li nga am ak investir ko fenn bëgg tok tranquille ay yenen ño xamanté xamu fuñ joggé ñew di la xam nga kenn bañul ndox nawet bu amee ndox kenn bañu ko mais li ñuy bañ mooy keneen raxasee sa ndox ca biti ñëw dolli ko si suñu ndox loolu daal métti na ñu ngi siy lancé appel nag ministre de l' assainissement autorité yi ñëpp ñu ngi leen di woo monsieur le mair le préfet le sous préfet comme li ko sëñ Yeli waxee nañu agir mais pas ñu ñëw rek pour constater pour dem sonn nañu nag ba fu sonn yem parce que lii buñ ko bàyyee ni bu bu ëllëgee dootuñ cité bi moom day day day seey vraiment sonn nañu trop waaw loolu daal ndimbal daal la ñuy ñaan nañu autorité yi dégg. riverains yi mooy suñu dëkkandoo yi ñoom ñooy ubbi fii ñoom ñooy ubbi fii eh, bu ñu ubbee fii nag ndox mi day dugg ci biir day dugg ci biir ni muy dugg fii dafa dafa mel ni géej gu ñu ubbi eh, beneen affaire bi nga xam ne autorité di fi ñëw daaw problème yi ñu fi amoon sax autorité bi fi nekkoon au moins moom def na cent pas ñëw na ba xool ba wër ak ñun ci biir cité bi yëpp ba xool ba kii yooyu amoon na sax ay camion kii ki hydro kii yu ne daf ñu ko daf ko baaxe woon ñu ne fi def fi trois jours di manque ndox mi di ko yóbbu.

Euh, euh, ñu agir rapidement gaaw ñu agir pour ndox mi bañ a kii léegi actuellement mi ngi ñu ngi ñuy seetaan affaire bi dajeeku na ndox maa ngi gën a ñëw mais ba léegi gis ñu lenn loo xamee ne ñoom def nañ ko fi.